ki jangale moy sunu borom ki mu bëgg mu taxawal ko ca jàngale ba mooy sayiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam. ku seet القرآن الكريم جسني ni اللغة العربية la اللغة العربية ñaar def ko الجوهر والمادة xam nga mag ñi li tax ñu topp leen mooy ni seen xam-xam toll ci madda noon la seen xam-xam toll ci jawaara madda mooy li ngeen di wax matière jawaar mooy li ngeen di wax anti matière mag ñi ñoo mën ñépp ci matière ñoo man ñépp ci antimatière et pourtant defaruñu avion defaruñu oto defaruñu bombe atomique xëy na ñoo feeñal atom ndax atom dafa xaw jege jawhar te jawhar a ay seen liggéey buñ ci jógee sugg ñëw ci matt su ko defee ci biir loolu valeur bi jawhar am bu fekkoon ni tey automobile essence bi ciy dem litre bi un million lay jaar dana bare ku dul am oto waxuma la nag te eh, liquide rekk la mais jawhar kan moo ko mën jënd jawhar kenn mënu ko jënd ndax yàlla bare leen na ko ba mu ëpp ba moo tax mu tudd alxayb wa shahaada lépp lu aju ci xayb jawhar la lépp lu aju ci shahaada màdd la na ngay nekk médiateur ci diggante boobu taxamuloo luy jawaar mënul nekk yonent baa ngi ñëw yàlla wax na ne nit ci moom wax na nit ki jaar yoon ak nit ki jaarul yoon waaye tuddagul kenn te yépp kat jëm si ci Muhammad rekk a tax ba mu sottalee linsaanam yu bare yi dafa dal di wax ni inna allaha astafa aadam ñu xam ni choix ba dikk na inna allaha astafa aadam wa nuuxan وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لوشي نيت من بخي أمول واو بوكو ديفال لاكو دالي تي آدم با محمد ني مو تان ньоญو ньоكو سيت الجوهر ньоكو سيت الجوهر ñi nga xam ni fexe nañu ba source bi sore leen ñoom it mu tudd leen wa firawna dil awsaad inna qaruna kaana min qawmi musa waaw ak amr ibn hisham tabat yada abi lahab choix bi ñëw na rejet bi ñëw na